dal leen ak jàmm kawteef amatina mu mel ni Sénégal jógagul ci wàllum coow ak njuuj njaaj jóge ci lenn ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk mbiru réew mi ñaari fonctionnaire wu ministre Amadou Ba la ñu jàpp ca aéroport bu France fekk ci ñoom lu toll ci juróom fukk ak juróomi million nañu nëbbagum seeni tur ba mbir mi gën a leer waaye daal li ci am ba des mooy ñoom ñaari fonctionnaire yooyu di liggéeyee ci ministère des affaires étrangères dañu leen a jàpp ci luubalu devise ca aéroport international bu Roissy Charles de Gaulle bu Paris li tax ñu jàppoon leen di fekk gu ñu fekkoon ci ñoom lu toll ci cent mille euros maanaam bu ñu ko xayma lu toll ci juróom benn fukk ak juróom ci million ci xaalisu réew mi ñu ngi fekk ñu nëbboon ko ci yenn ci seeni bagage waaye mel na ni mbir mi dafa am lu ci rax ndax bu ñu sukkandikoo ci ñaari douanier yi nga xamante ne ñoom ñoo fekkee mbir mi te ñoo leen téye woon mbir mi dafa am ab nëpp nëppal gu nekk ci biir ñoom douanier français yi bu Quai d'Orsay ak Bercy di xamle ne mbir mi ab lëndëm lëndëm mi ngi ci biir ndax ñoom jàpp nañ ne anam bi mbir mi jaar am na lu bari loo xamante ne lënt na ci seen xel ñoom ci seen bopp li seen xel mënta nangu mooy jàpp gu ñu jàpp ñaar ci mbir moo xamante xamante ne nii mbir mu am doole la daanaka kuñ ci jàpp war la teg ay daan ñu gis ne ñii dañ leen a mujjee bàyyi ñoom duwaañe yooyu di nettali mbir mi nu mu demee di xamle ne donte ay kilife yu mag ci seen réew ñoom ñoo joxe ndigal ci ñu bàyyi ñooñu ñu dem ñoom ci seen niveau danañ topp mbir mi ba fa mbaxana doonee benn te luñ ci góobee gar ko bi ñu jàppee ñaaru sénégalais yooyu noonu ci seeni kàddu dañ leen a jàpp daal leen déglu ngir xam ana lan moo leen ana noonu dugal ko ci seeni bagage waaye li jaaxal douanier yi mooy euh, biñ ci toftalee ay waxtu rek dañ leen a bàyyi ñu daal di dem ginnaaw si bi nga xamante ne ay kilifa yu réewum France ak ay kilifa yu réewum Sénégal jot nañ ñu daal di dénkante ay kàddu ci mbir mi ci noonu la ñu bàyyi ñaari sénégalais yooyu ñu daal di dem waaye xaalis ba ñu fekkoon ci ñoom moom daal di nañ koy mujj téye foofu ca seen uh, enquête kaay ba la ca doy waar nag mooy ca ba ñu leen di déglu ñoom ñaari sénégalais yooyu dañoo waxoon ne dañu nekkoon ci ndigalu benn ci ñi nga xamante ne ñu liggéeyee ca ministre ba muy ki nga xamante ne moom lañ dénk lépp luy wàllu kopp koppar ca ministère ba ba tax ñu bëggoon a jokkoo ko waa jooju waaye ca na mu gën a gaawee moom waa jooju waxtu woowu mu ngi ko fekkoon na fële ca Mekk maanaam ca Makka ca noonu ca la moom waa jooju daal di woote daal di xamle ne lépp lu ñu tekk comme baaraamu tuuma ci ndoddam moom loolu amu ci lenn lu ciy taq daanaka dafa weddi lépp lu jëm ci wàllu mbir moomu te xam la ne ñooñu nekk ñu woon di liggéey pour Sénégal du moom moo leen yónni te amul gisul xamul kenn ku leen war a yónni xaalis bu toll noonu ci jamono jooju lii tax na mbir mi gën a lëndëm ma ñaari sénégalais ñu jàpp leen ñu yor lu toll noonu ci xaalis wax ne am na ku leen yónni ci wàllu ministère ca kooku nag wax na ne moom amut lenn lu ko liyee ci mbir moomu te gëm na ni amut fii ci Sénégal kenn koo xamante ne war na leen mën a yónnee xaalis bu ñu toll léegi mu mel ni am na luy lëndëm ci mbir mi mbir mii nga xamante ne xam naa ne fii ak ay bés dina ne xus ci réseaux sociaux yi te ñëpp daañ ci waxtaan mu nekk rek mbir mu nar a dolleeku ci njuuj njaaj ak wàllum xaalis ñu ngi xool ndax dinañ ci am ay leeral ngir indi leen ko ca noonu ñu ngi leen di jox daje ci nu mu gën a gaawee jërë ngeen jëf